baaxee internet yi nga xam ne ñu ngi wéy di tàmmu euh, les programmes de Feeling Dakar TV ci suba ak léegi ñu ngi wéy di ànd ci ay édition yu am solo yoo xam ne édition spéciale ans après indépendance tey nag ñu fas yéene de la république loolu lépp ci kanam tuuti du ñàkk ne yéen ci ay diwaan parce que il sera bientôt li nga xam ne moo di 19 euh, parce que 18 passé de minutes du ñàkk yéen ci ay diwaan yoo xam ne rek ay résultats commencé nañu dal vision ci jàngat ak xayma eh, ci résultat yi nga xam ne rek dina wéy di commencé eh, di wàcc fii eh, ci diwaanu li nga xam ne rek moo di Sénégal ak li ko wër bu ko defee aussi mu wéy rek di joxe ab jàngatam xam naa ci kanam tuuti du ñàkk Abdou Khadre ñu dal di wutal yenn ci li nga xam ne moo di ay yu wàcc bu ko defee ñu a wéy di ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi mën leen ko dégtal ba dara rek du leen ci dal di rëcc jëmale ci élection présidentielle yu 2024 ginnaaw bu ñu ko dàqee dàqandiko ginnaaw également lépp li nga xam ne rek rek jot na ci dal di am euh, bu ko defee aussi rek ñu wéy di ci ànd ak yéen ci nu mu gën a euh, donc Clédor ñu wéyal rek li nga xam ne moo di euh, wax ji certainement du ñàkk ne instant bi am na yenn ci résultat yuy wàcc ci li nga xam ne moo di diwaanu Sénégal ak li ko dal di wër mm-hmm. mais bu ñu ñëwaatee ci candidature bu mel ni Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. fan yi dañuy gis ne il a été beaucoup critiqué certainement si sa mm-hmm. prise de parole ak yenn ci propos yoo xam ne yëkkati na ko ñu bëri jàpp ne moom il n'est pas mentalement ñoo xam ne euh, ràññee ne leen bu baax ñu ne euh, ki li rek nga xam ne moo di euh, Bassirou Diomaye Faye vraiment yorut li nga xam ne rek moo di culture wala sax yorut li nga xam ne moo di jëmmu njiitum réew bu yoree réew mi mun na créer beaucoup de trucs par rapport à ça yow ban tontu ngay indi ci loolu. wax loolu je crois que c'est décomplexé. parce que amul noo war a mel. Mm-hmm. physiquement mm-hmm. pour nekk jiitu réew. Mm-hmm. donc communication nag moom communication la léegi. am na ñoo xam ne bu fekkee ni munuñu la mënuñu la mënuñu la baare dañ lay jéem a discrédité maanaam jéem a yàq sa image wala yàq sa crédibilité pour euh, nit ñi seen xel bañ a dal ci yow loolu euh, xam nañ ko ci landerneau politique bi mais euh, président amul école bu ñu fay bu ñu fay génnee donc euh, je crois que loolu ay wax loo xam ne euh, vraiment mënuñ ci sukkandiku pour maanaam natt nit ki ndax am na dayoo nekk njiitu réew ou pas parce que li ëpp solo mooy ndax mën na ko Bassirou Diomaye c'est un administrateur civil c'est un inspecteur des impôts et domaines donc un vérificateur un cadre de la hiérarchie A donc kooku xam na administration bi muy doxee et puis euh, un président il gouverne pas seul il gouverne avec une équipe et une feuille et un programme donc programme boobu la ñu war a xool projet bi mu porté la ñu war a xool ndax euh, baax na pour Sénégal ou baaxul pour Sénégal que di attardé wu ci jëmm ji Sénégal dañu tàmm boo leen di joxoñ yoon au lieu ñu xool yoon bi nga leen di joxoñ mhm. mais baaraam bii joxoñ la xool naan baaraam bii nii la mel te gisuñu yoon bi nga xam ne moom lañ joxoñ mhm. loolu euh, nañu fexe mu bañ ñu dal ci nguur bi ñu nar a jëm nii mhm. parce que dañu tracé benn voie boo xam ne je crois que ci la war a focus plutôt que kii porter projet bi Hmm. voilà jot nañu sax yenn ci li nga xam ne rek moo di ay procès euh, verbal bokk na également fële ca diwaanu euh, Diourbel la euh, fi nga xam ne nag moo di tubaab mosquée foofee la ñu xamal ne résultat ya génn na kii di Bassirou Diomaye Faye nag am na ci deux cent soixante dix neuf voix ki nga xam ne moo di amadu Ba seize voix la fa dal di am mu nekk fële ca diwaanu li nga xam ne rek moo di Touba mosquée en tout cas di résultat boo xam ne jot na wàdd tout à l'heure hmm. fii ca diwaanu ci Ziguinchor lañu ñu wax ne foofee la euh, foofit jàppal ne moom euh, Bassirou Diomaye Faye am na so 264 Amadou Ba am na li nga xam ne moo di 67 euh, voix euh, mu doon ñaar ci ay résultats yoo xam ne rek wàdd na benn ba ca diwaanu Ziguinchor benn ba ca diwaanu li nga xam ne moo di Mbàkke ca Touba Mosquée euh, mu doon résultat yoo xam ne dinañ wéy di ko daal di toppandi en tout cas ci nu mu gën a leeree ci par rapport ak li nga xam ne rek moo di bile élection présidentielle mu mel nag que ni ñu ko waxee Clédor résultats yaa ngi commencé di wàcc ndànk ndànk fii ci li nga xam ne moo di biir réew mi et certainement ñu bëri ça va leur permettre ñu am benn paramètre wala baromètre bu leen di permettre éventuellement euh, ndax mbiri dina àgg deuxième touram fii rek lay mbir mi di yem. waaw dañ ci boole troisième bi booy lire résultat yi. oui lire les trois waa pur hein. <laughs> non pas forcément le troisième rek. waay waay c'est voilà donc écart yi. Mhm. ngay xool à Touba. waaw deux cent et quelques contre seize. waaw foofu moom. xam nga écart bi. Mhm. dafa bëri. Mhm. Ziguinchor aussi écart bu ne mel. dafa bëri moo fa am. léegi loolu. fraude ak dara du ko compenser moo tax euh, je me réjouis que Macky Sall ait dit mhm. et mis en garde ñi bëgg a ñi nar a proclamer moom xam na lu muy wax de mhm. ay résultats parce que waa këram lay waxal mhm. donc je crois que moom fi mu nekk nii euh, li Matar Cissé def rek wane na ni il est revenu à la raison pour organiser ay élection yu incontestable donc euh, lii euh, ça Ziguinchor parce que c'est le fief de Ousmane Sonko oui, Touba aussi c'est le fief fief de Pastef donc euh, ki ni woon amadu Ba mooy gagné xëy na day xaar yeneen sant vote yi. <laughs> Euh, waaw parce que jeexagul mais je crois que écart bi ni lay demee à Touba. ok noonu lay demee à Ziguinchor noonu lay demee à Bignona. Mhm. noonu lay demee fii à Dakar Kër Massar Guédiawaye Parcelles ça va être comme ça écart bi ça va être sans appel. donc euh, bu tendance yooyu wàccee. Mhm. je crois que képp koo xam ni da amoon intention wu jaxase wala proclamer ay faux résultat loolu je crois que kenn du la seetaan nga def ko kenn du kenn kenn du nangu mhm. nga jaxase dëkk bi donc foofu la Macky Sall di waxee et je crois que pour une fois. Mhm. ma ànd ak moom ci position ok laaj bi ñu laaj mooy gis nañu élection locale yi li euh, nga xam ne ñoo di Benno dafa def benn reculade élection législative également ay dem laaj bi nag mooy est-ce que entre temps mën na fi jogaat ba yegg si fenn fi ci wàllum quota est-ce que c'est possible concrètement. Euh, pour Benno Bokk Yaakaar. waaw waaw wu waaw relevé wu. non Benno Bokk Yaakaar mu ngi jëm ci éclatement. parce que quand tu perds le pouvoir ku nekk day wuti lu mu am. Mhm. que d'abord c'est un parti structuré maa ngi koy wax sànq. Mhm. Euh, mais bu ñu perdre pouvoir du ñu am euh, euh, lu ñu mën a retenir seen clientèle politique du ñu am lu ñu mën a retenir seen clientèle politique donc forcément dañuy disloqué wu ku nekk dem wuti wuti lu mu am yarhamukallah donc loolu mooy mooy li leen di gete en fait parce que tout tout porte à croire que bon c'est le début la fin pour voilà en tout cas mu ngi mu ngi noonu xam naa on va essayer de de de voir si on peut avoir yenn ci ay euh, réaction balay ñëw di wéyaat ak yow ci par rapport ak yenn ci ay résultats yoo xam ne du ñàkk ci kanam tuuti dinañ ko jot dal di ci ànd ak ñi nga xam ne rek ñoo di internet yu Feeling Dakar TV ci euh, ngoon ak léegi ngeen way euh, di ñu topp ngeen way également di ñu may nopp ci par rapport ak yenn ci résultats yi nga xam ne rek ñu ngi commencé dal di wàcc fii ci diwaanu li nga xam ne moo di Sénégal à l'étranger également parce que ca diwaanu France certainement yokkoon benn ci app waxtu mais bientôt il sera 19h est-ce que foofu it euh, nekkuñu ci temps daal di euh, tëj bureau de vote def le décompte du côté de Parcelles Assainies également bureau bi nga xam ne fa la du baax daal di voté on nous signale que foofu déjà commencé nañu commencé nañu li nga xam ne rek moo di décompte yi là c'est foofu aussi lu ñu yor a euh, surveiller la de li nga xam ne moo di Clédor fi nga xam ne fa la Amadou Ba waatee également mm. euh, pour voir éventuellement voilà mm. parcelle foofu aussi ñu daal di ko saytu bu baax a mm. baax mais jëlee diwaan bu mel ni Tambacounda nga xam ne Mady Sidiki Kaba qui est l'actuel premier ministre actuellement au Sénégal euh, politiquement je pense que dafa nekk koo xam ne dafa bokk ci benn ci APR est-ce que foofu aussi dina yomb ci li nga xam ne moo di kujje gi non du yomb ci guddi gi Tambacounda parce que c' est c' un fief boo xam ni toujours ñoom parti au pouvoir la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy voté te feeñoon na ci feeñ na temps yëpp. Mhm. donc euh, boo xoolee même violence électorale yi sax yu ëpp Tamba lay amee. Mhm. Euh, depuis jamonoy Ablaye Wade Maka Koulibantang dañ ko mhm. fa piégé woon. élection yee passé yaa ngi euh, deux mille dix neuf y' avait un mort bi ñu attaqué convoi pur yi. taal fa ay minibus y compris ay ay bus journaliste bii passé nii keroog ki démb rek taal nañ fa benn 4-4 au cocktail donc Tamba euh, tout le temps parti au pouvoir lay voté te Sidiki Kaba dafa mhm. moo tax c'est une bonne chose que Ousmane Sonko s'y li mu fa dem mhm. lu mhm. baax la parce que dina tax aussi opposition bi euh, relever fa son score wala peut-être même gagné ko parce que affaire yi mu ngi évoluer sur le plan des mentalités. parce que nit ñi comme je dis lu bees la ñu bëgg. donc euh, du doon lu yomb euh, euh, Tamba ak Kédougou. mais je crois que Kédougou mooy gën a yomb ci opposition bi que Tamba. Tamba ak li ñoom c' est ils ont toujours été du côté du parti au pouvoir. ok te ndeysaan ñoom <coughs> amuñu dara. Mm-hmm. ils sont des parents pauvres mm-hmm. mais ñoom daal ñu ngi ñu ngi noonu. surtout seen dëkk dëkkaan yi. Mm-hmm. Euh, vraiment doo comprendre. oui des fois Sénégal. <laughs> en tout cas diwaan bu kii la. Mm. Euh, justement rek peut-être résultats yi nga xam ne maa ngi doon ko joxe pour pétition.